bismillahi rahmaani rahim salaamu minallahi aleykum wa rahmatuhu mbokki julli rawatina mbokki taalibe yi rawatina njabootu xam ne dongay taalibe mu nekk dañuy yóbbu saabu yi xel koom yóbbu ko ci njabootu xam ne duñ ko càmmoon lépp ci sëriñ Saliou Mbacke mi fi nekkee yóbbu ko ci daara yi ba noppi jaar ci moom mu bég ca lool ndax dong yi jóge ci daara yi ba noppi wëlbatiku di fekk seen mbokki daara yi nga xam ne ñoo nekk daara di leen fàttaliku tax na saabu yi ñu koy yóbbu at mu nekk la 5 août bii lay doon mbokk yi ñu koy wajal Sëriñ Laye Mbaye Peex moom Cheikh loo xam ci woote yi rawatina ci soppe yi. ñaanal Cheikh Amadou Mountakha mu yàgg fi waaye ñaanal Serigne Cheikh Mbackeem Serigne fi bàyyam bu baax bi bàyyi woon Serigne Cheikh yokku na yéen ñi nekkoon ci daara ji nag di tër bi xam la ne ca daara ja sagam na ca wàllu ndoobaa daanu ca teen ba ba suñu ci pind ba yéen a fa nekkoon xam la fa xew te Serigne Saliou dongoom yi dañuy set. du ñu yalwaan du ñu jagam du ñu buun du ñu saalañ ngeen jël saabu yi yéen ña fa nekkoon ñu nañ ko jox donga yi ba donga bu ne am saabu bopp weer ba weer wee jël si déwén mën na ci asangu ah lii su ci feeñ ci lu baax ci saabu yi dem ca daara sin teeri wu jë dootul nëbb soppe yi xarit yi wëlëri yi am di jàmm yi ku sopp sëñ Saaliw ku ko gëm ku ko yaakaar ku ko bëgg feeñal ci saabu yii ñu dem ca sëriñ Cheikh siddali ko donga yi di ko sangoo weer ba weer si del si déwén sëñ Saliou di faj ca ajo weer ba weer wi del si déwén waaye ci yéen numéro la jox jokkoo ak ba man leen a jot jërëjëf Cheikh lay may peex numéro bi yomb na lool 77 143 21 21 tàmm nan nag saabu bi nga xam ne mooy saabu laa nekk Serigne Moustapha Dia nekk Grand Yoff jotu garage bi ñoo moo ñu koy baaxee jàmbare loolu nag ci liggéey mbokk yi ñu ngi woo ñëpp comme ni ko Cheikh Abdoulaye Baye Père waxee saabu yëngoo defe naa la cinq août lay doon. gàcce ngaalaama Cheikh Moustapha saabu yi nga am def sa oto def ci gasoil yëkkati lu bari jox leen ko ñu di ko séddalee ah moo taxit gis nga faraafu nuróo naa yàq waaye ngoobu ko weddi loolu mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké la cinq bii nun jëm jox saalu yi sëriñ Seexum sëñ Saaliw sëñ Saaliw fat leen ku mu fat doo faral di ji jërëjëf Seydou Mbaye Mbaye 143 21 21 gannaaw 77 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu